njumbu kaay leen ah tey kay na ngeen sant kay ah. <laughs> waa kii ñoo fi war a ñëw Cambérène TV ah, def naa sëb bi baax na. asalaamaaleykum waaleykum salaam temps moom xale yi ne may temps yi moom yaa maa ngi nii rek na ngeen def. ñu ngi nuyu ñëpp waa Cambérène TV synchronisé ak sunu média TV ñëwaat rek di nuyu Cambérène ga ma jógee ah, rawatina kilifa diine ya fa nekk yëpp ahlu bayti rasulullah Mamadou Makhtar laay jiite ko di ko ñaan yàgg te di ko ñaan kilifa diine yëpp nag di kontaan ci ñoom ñu amaat mbégte ñëwaat rek jàkkaarloog tey honorable ak ay militant yi nga xam te ne ñoom la àndal ah, tey nag li ma lay jëkk laaj honorable dama lay bàyyi nga nuyoo ba pare sax nag ah. Euh, maa ngi nuyu ñëpp. waaw donc euh, di nuy sama couturière Mimi Couture. Mimi euh, di nuy tamit sama coiffeuse Mimi Coiffure. Mhm. nga xam ne temps yi macha allah. Mhm. xale yi moom la ñu xewal ci été bi. dëgg la Mimi coiffure Mimi Mimi kii. fashion waaw Mimi fashion. Mhm. ñi ciy kontaan. dëgg la donc c'était juste ça. dëgg la kon complexe Mimi yëpp ñu ngi leen di nuyu. honorable question bi ma lay jëkk laaj am na si bu Karim Wade nga bokkoon si ñi nga xam te ne yaa tax caabi féete eh, ko ginnaaw eh, ñu doon laaj rek ana ban gis-gis ban jàngat tey nga ci am boo déggee rek tey jii rek eh, président da leen di jéggal moom ak Khalifa Sall ana noo ko gisee est-ce que du am dara rek la am te dina la yàqal surtout jamono jii ñu nekk ni man lu ñu ma loo ci jamono jooju dañ ma ko defloo. ah parce que boo ma waxee ne yaa man maa. Euh, yor caabi di tëjee di tëjee. sa loxo génn boobu dama nekk dama nekkoon ci gouvernement boo xam ne Macky Sall la ko jiitee donc su ma joxee ordre ne ma lii dañ ko def kon loolu laay def kon boo mel nekk que dama bëgg ba ma tëjub Karim Wade. Euh, jugewul sama loxo ci loxo président Macky Sall la jugee. waaye sa loxo génn ci non euh, xam nga yow Cambérène nga dëkk. Cambérène te ah, Cambérène wax dëgg yàlla euh, bàyyi ma dinaa ko tontu. gis nga ndigal dafa fort. dëgg na te bu fekkee da nga am sa sëriñ mu joxe ndigal. Mhm. da ngay réagir ba pare sax soo ko xam ndigal bi fan la jugee. Mhm. doo xaar donc man j'ai fait ce que le président a mhm. mooy nañ ko jàpp nañ ko jugé nañ ko tëj loolu moo am te loolu laa def. parce que période boobu j'étais dans le gouvernement. mais est-ce que du am dara lantan rek dina wàññi eh, ci yow surtout jamono ji nga xamante ne yow ak eh, président neexoow leen maanaam da nga génn si groupe parlementaire boobu di benn bokk yaakaar est-ce que du am tuuti lu mu wàññi wala dara lu mu def rek. déedéet non non muy wàññi parce que loolu c'est la. gàcce du ci am daal ah, gàcce ci ñoom. si yow gàcce ci président Macky Sall. parce que moom moo ko def la woon defal naa ko gis nga euh, bu fekkee ne dafa am ay wax yoo xam ne. Mhm. dafa jugee ci nit ñi ñëw ci ñun. ñun xam nañ nañ koy gérer. Mhm. mais am na wax yoo xam ne ci état la jëm. donc état moo koy gérer dama nekkoon ci état boo xam ne président Macky Sall moo ñu doon defloo ñuy def moo ñu doon dindiloo ñuy dindi mhm. donc période boobu nag boo nekkee ci Euh, nguur doo nekk ci nguur ba pare euh, di gor toog di garab di ko gor c'est impossible mu tane mhm. donc ñun amoon patriotisme gëm ne président Macky lépp lu mu def en tant que républicain mhm. bu ko defee rek daf ko def ci état de droit te ci état de droit yooyu nañ nekkoon ñu gis ne rek politiciens yu bëri euh, comme li nga wax léegi rek nekk ci gouvernement parfois tamit est-ce que du ngeen gëstu askan bi xool li nga xamante ne mooy njariñu askan bi ngeen koy def mais dañuy dégg ci di wax ne lii la ma jàkkaarloo ngeen xool euh, même bu dee lu nekk na lamte ne du lu baax si askan wi sax da ngeen koy def est-ce que du ngeen xoolaat euh, rek seen diggante ak askan wi ak ni ngeen di defee politique Sénégal mu mel du nekk lu doy waar Euh, je vous coupe pas euh, madame Gningue. Mhm. mais ñun euh, du ñu ñoo xam ne dañuy def kon ay marionnettes. parce que dañu nous sommes ay juristes nañu xam nañu mhm. li ñuy def xam nañu lu ñu jàng xam nañu bu baax réew ni muy doxee. mais affaire waajooju bëggatuma mhm. sax nga ma ciy poser question. <laughs> parce que man maa nar a jàkkaarloog moom. bu fekkee dafa nar a jàkkaarloog li nga xam ne mooy troisième mandat. du ñu ko nangu tey. bu fekkee reste force la loi bu imposer boppam bu defee damay ñaan. Euh, Sénégal ñu bàyyi ma ak moom ma régler problème am ak président Macky Sall man li ñu turee. léegi kon nekk nga euh, maanaam candidat bi nga xam te ne instant bi yow yaa gën a redoutable euh, maanaam yow ak Sonko yéen a ko gën a sonal surtout si problème troisième mandat bi est-ce que man nañ xam yan stratégie ngay teg pour rek dëggal sa bopp wane sa bopp pour askan wi tamit jox la bopp. ala mën a teer a keer man di. làkk léegi. Sara Jantaale man di Kole. mimi Sonkole. Ah. Casamance na dinas Casamance dinkatang. lépp abing Baba Tanka abing. waaw. moo la ñaame ne moo la ñaame. Hmm. Touré ndaa kene Touré Kunda. waaw. mandi mori naa kana Touré mandi mori. Sonkole baanen king ndaa naa ko tindaka Mimi Touré panka fole kundane kanta amana bala ko ñole sakin madna Ousmane Sonko sile kana sell mi inchallah rabbi mhm. ya Oustaz Sonko mi bunkili faka ñinka tankala banka munu mun solo kole alamana torona tinka bam bamba katin to solo mantana na Ousmane Sonko soli soli dama wax foofu dama ne Ousmane Sonko waaw bu fekkee ne maa moom la Macky Sall la bañ a teg bët. man dinaa fexe ba teg bët ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko. Mm. ndax boo ne Touré ne Touré Kunda. ku weddi laa jël orchestre Touré Kunda fan la bàyyeekoo du Casamance. Sonko le bànjaale nantaale mooy moo ne ne ñun Sonko ñu sant Touré. ñu sant Sonko ñoom ñoo ñuy jox sagaru njaam. Ah, kon mën nañu xaar yow Sonko ngeen. ànd man bàjjanam pour xeex. pour xeex bàjjanam laa. Ah. bàjjanam laa parce que boo laajee maire Ajaratu Fatick. Touré leeraloo woon ko ba nga nekkee ci gouvernement moo jur Ndeye Sali Sonko ah. Ndeye Sali Sonko am ci Xarjata Sonko mu am ci Dinkala Dinkala kon man tey waa su ma neexee damay wax saase nu ma neexee wax sa waaw lu tax fësaloo woon ko bi nga nekkee ci gouvernement bi parce que ki ma ko seqaloon dama foogoon ne dafa nekk koo xam ne bu jàppee du bàyyi ndekete day jàpp di bàyyi assee la dëgg la président acier la ñu am. Ah, président acier. weñ rek lay jàpp du jàpp bant. fu ko intéressé rek la ku moo ko intéressé lu ko intéressé wul intéressé ko. ah la waaye nag kii di Sonko na xam ne moom. waaw am na loo xam ne dama ko doon nëbb sama diggante moom moom tey na leer. tey daal nga koy fesal ndax ki jur xarjata. waaw moo jur Ami Collé. Ah. te Ami Collé Touré. waaw ak xarjata Touré ñoom ñoo meññ. ñoo dem am am Babacar Sonko bi mu ñëwee ci fi nga xam ne mooy Touré Kunda. waaw ut fa Sonko sama bàjjan. Mhm. Ndey Touré. moom la daa day jël am ci doom. waaw doom jooju moom lañ tuddee Ousmane Ousmane Ousmane Sonko mi. waaw loolu daa laay def honorable duma ci wax non comment laay def. parce que lii moom leeruma woon. ban kon dañuy wax ne ñun. waaw amuñu dara ñu ñuy ragal. dëgg la amuñu dara lu ñuy tiit. Mm-hmm. bu fekkee Sonko dafa bëgg ñëw liggéey ak ñun war a ñu war a liggéey ñoom loolu mooy am. y' a ah, kon man nañ ko xaar daal dañ ma doon defloo ki ma doon defloo nag du muntuma defloo. ah ok te Sonko mun na maa defloo ma def. Ah. waaye mën naa koo def loolu mu def tamit. kon nag bàjjan ak doom bàjjanay bàyyi kon mën nañ xaar daal kon jeex na c'est ça la na te ñun ku ñu xool xam ne ñun on est des nobles duñ daw maa ngi wax ne waa APR kan ñu xaar incha allah suñu première sortie ñu ngi koy defee Casamance. Casamance dëkku Ousmane nañ koy defee mu sell mi nga xam ne dañ koy jiiñ rek te duñ fekk dara ci moom. Ah, dëkku Ousmane mu sell mi. waaw saan dëgg la. non comment loolu laay tàggoo tey Cambérène TV sunu média